télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu animal ngir a saytu sama laanu mi dundee. fii ci Ladoum TV. jox la kàddu seen wàccuwaay nga xam ne tamit yéen mbégte élevage rek moo leen tax a jóg parce que fu élevage xewlee rek yéen daanaka ñëw ngeen comme que ñëw ngeen ci daj daje gi ci ngel këpp gi daanaka yii daal lañ fi indi daal. macha allah ñu ñëw ci daj daje gi wërngal këpp bi nga indi fi benn maal bu extraordinaire muy Diabel nga présenté ñu Diabel wax moom daanaka soo xoolee moom daa def ay parcours parce que première euh, sortem moom mi ngi jël troisième muy foire ADER bi foire boobu daanaka foire boobu soo ko jëlee rek mooy def nga bës ci biir banlieue bi def nga bës biir Sénégal foire boobu dafa ñëw jël fa troisième. daf fa lu doy waar indi mensuration yu doy indi poids bu doy waar moom tamit koo koy jabel jabel papaam Yékini mi ngi nekk euh, mi ngi nekkoon euh, kii wu jabel Touré mais léegi mi ngi ci àll gay incha allah moo nekk nii daal moom daal lañuy lañ indi nii ak ay jabaram euh, en plus tamit ñu indi doom booy doom booy dembis bi ak ay jabaram moom tamit moom lañ indi nii loolu daal lañu fi teg macha allah. ñaari ñaari tëng. ay tëng kenn ki tëng la daal kenn ki yaakaar naa espoir la ay cuulul waa nga présenté ñu ñooñu. waaw soo xoolee tey ñu ngi fi teg ñaari tëng ñaari tëng yi soo xoolee ñaari tëng yi ñaari tëng yi ñu fi teg euh, ay doomu carndeela lañ beneen bi euh, rakku Samba Laobé moo ko jur dafa laal ci mixa bii soo xoolee Dubaay Maal moo ko jur ba espoir bi soo xoolee booy dembis moo ko kii te dembis soo xoolee foire reera bi moom def na fa lu doy waar moom parce que moom dafa ñëw rek dóor espoir yëpp moom da leen a dóor moom surtout jeune duma bu baax a baax à long terme la lu muy gën a dem di gën a def ay production lu muy gën a tamit dem tamit di yokk poids bi di gën a yokk te poids boobu dañ koo liggéey poids boobu moom moo ko moom pois boobu jël doon loo xam ni dañ koo ñëw rek daal di ko koy imposer non poids moo moom parce que tey soo ko xoolan tey si oto comme oto yi ñu yab xar yi moom mooy yéegal boppam dugal ci boppam ci biir oto bi waaw daa moom boppam daal waaw balaa nga koy xam tey ñu demoon podium ba wala feneen ak feneen soo ko tekkee day daw damal boppam poids bi moom moo ko moom. macha allah kon waa terrain ba nañu xaar jabel mi ngi ñëw nga fàttali ñu adresse su bergerie bi ak bergerie bi nan la tudd ak numéro téléphone bi. waaw bergerie bi moo nekk nii ci bâche bi mooy bergerie Cheikh Ahmed Tidiane si Bercha euh, propriétaire bi mooy grand Alla waaw Alla moom ko dégg xam nga ko waaw mooy grand bu baax la moom tamit waaw borom Gandhi dafa lu doy xam nga yor fi maal yu exceptionnel ñëpp dégg nañ ko nekkoon fi tamit colombophile bu mag boo xam ni Sénégal ko wërngal këpp ñëpp dégg nañ ko moom. moo nekk nii am na boo xam ni caaro yi la nekk bergerie bi. boo xam ne 26 la nekk ci en face côté poste de santé bi quoi poste de santé 26 bi. 77 549 33 50 wala ngeen jël 76 bi 240 10 11 voilà. mooy télé bi bégal sama askan. treizième édition nga ñëw ci foir bi bi nga ñëwee ci foir bi gannaaw ba nga wàccee ba def visite lan nga lan nga sentir ci sa bopp yow. waaw fierté la ba boo xoolee déjà nga ñëw ci foir bu mel ne Saladam mu nekk euh, événement boo xam ne éleveur yëpp képp koo xam ne yaa ngi ci élevage bi. Euh, bokk na ci say objectif nga ñëw participer ci salon bi. parce que cette année dafa nekk salon boo xam ne euh, dafa am différence ak am. parce que cette année salon la boo xam ne salon international la donc euh, looloo tax tey jii buñ buñ fi teewee euh, fierté rek lay nekk si ñun quoi. macha allah loolu am na solo bi nga ñëwee ci foir bi par rapport ak yow si sa exposition xar yi ngay yor sa biir kër ni ngay toogee di leen xool par rapport ak xar yi nga gis ci foire bi ban différence la bon damay gis ne niveau bi ma bëggoon yóbbu samay xar maa ngi ci yoon bi euh, bien vrai que yeggaguma ci niveau bi ma bëgg. mais je sais que ni bi ma gisee xar yi ma fi fekk ak xar yi ma indi am naa yaakaar ni su ma continuer liggéey bi euh, niveau yi ma bëgg samay xar yegg fa nañ fa yegg incha allah. de niveau bi nga bëgg a yegg ban niveau la gannaaw ba yow yaa ngi fi yor benn maal bu extraordinaire ban niveau nga bëgg a yegg. waaw mais niveau bi ma bëgg a yegg mais ku nekk xam ne euh, man moom sama nature moom lépp lu may dugg dama bokk ci ñiy jiitu te comme ni nga ko xamee bon maal bi lu mu extraordinaire extraordinaire. yow doxantu nga gis nga ñi ngi fi fekk c'est sûr que ni waxuma la sax supérieur mais romb nañ ko di dem donc nag foofu maal yooyu nekk fa laa bëgg a jëm. xëdd maal yi ma gis ma ne wuñu maal bi dara de xëdd nga présenté wala ñu maal bi rek wax ñu mooy ka waaw maal bi moom euh, surtout magistrat la euh, mi ngi ci vingt cinq mois euh, moom dañu jël benn maal bu ñuy wax biraayam teg ko ci hmm, Pate Ndiaye. mu jur Marie Pierre ñu jël Marie teg ko ci séeréer mu jur Miss Cambérène ñu jël Miss Cambérène teg ko ci magistrat mu jur papaam ci côté yaayam euh, sëtu noppil la maanaam benn doomu noppil bu ñuy wax amaneex euh, amaneex yaay ji nekk sër sëtu Biram Jéeme ak Batlin euh, moom lañ jël boole ko ak doomu magistrat boobu nga xam ne yaay ji Miss Cambérène la mooy maamam kon xëdd yow mooy loolu nga présenté ñu moom ñu ngi fi àndaale rek waaw soo xoolee actuellement nii euh, kii mooy yaayam mooy euh, doomu ama neex bi kële mooy taawam taawam moo nekk ne ci treize mois kii nii aussi doomam la mu ngi ci six mois ak kii rakkam la ñoom ñaar ñoo bokk yaay kii doomu daawda la ñoom ñaar ñoo bokk yaay donc famille bi ma indi daanaka soo xoolee yaayam laa indi ñaari doomam ak benn rakkam bu mu bokkal yaay càpp nga sa loxo ci soosu foire xëdd ñii ñan nga si war a dugal concours tey ñu jongante bon malheureusement Euh, tënk la waroon dugg mais dafa foq bu muy ñëw mais dinaa ko dugal ci espoir yi. incha allah loolu am na solo nga fàttali ñu bergerie bi fan la nekk ak sa numéro téléphone pour ku fa bëgg ñëw. bergerie bi ngi nekk Rufisque cité Sëñ Mansour numéro téléphone bi nekk 76 391 45 06. Fidji Ladoum TV.